loolu tamit bokk na ci li nga xam ne mooy tax nga mën a dox tem ci defar diggante bu bu bu yàqu dana tax nga am tiyaaba yi jokk bokk bu wóor a wóor a wóor bokk na ci tamit li nga xam ne sëriñ bi indi na ko muy ponk yi nga xam ne dana tax euh, ab diggante gën a baax ak bokk gën a jaxasoo mooy xajoo xajoo sa mbokk bëri na ñoo xam ne duñu xajoo seen mbokk léeg-léeg dañ koy gis sax muy ñëw ci ab jataay di leen fekk si doon mbokk muy ñëw di la seet si ngir yàlla rek balaa agsi rek nga sànni ko ay kàddu eh diw moom da mën a kii lool yooyu ay jikko la yoo xam ne tamit eh, baaxul ci diggante ak bokk wala iñaanante ak bañante iñaane sa moroom rek ngir dara te doo xam lu tax wala nga bañ ko rek te doo xam lu tax loola sëriñ bi leeral na ne képp kuy iñaane rek doo doon ab sang maanaam innal asuuda la yasuuda euh, moytu tamit xeebaate te bëri na lool ci xeeb nit ki ngir jàpp na yaa ko gën aw askan te xamu boo xam yaa ko gën fa yàlla waxlam bi annama tafaawatul wara bil xilmi wa diini yakunu fasbira wa bihima yafdulu man xad fadala fadula laa bintisaabihi liman xad ixtala Euh, sëriñ bi waxoon nañu ne rawanteek mbindeef yi kët ci xam-xam ak diine lay nekk waaye du caage ne danga raw nit ki ci askan walla nga raw ko ci ab judd waaye ci ak mbaax la ñu rawante sëriñ Mbàkke dafa wax lu am solo ne askan wu rafet li tax ñu koy tànn mooy boo ci bokkee dox jëm ci lu baax mën na la yomb maanaam ak tos la mu ngi mel ne nga fekk ab tool nga def fa li ñuy wax tos ay nefere wala engrais ngir da gis ne dugub ja sax foofa ni mi gën a naate ak ni mi gën a sëqe li sax feneen foo xam ne euh, melu noonu a bokk ci askan wu rafet loolu lay jariñ waaye li tax nga mën a jariñu nag ci askan wa mooy dangay ngay góorgóorlu ci lu baax da góor góorgóorlu ci lu baax góor góorgóorlu ci diine ak ragal yàlla te bañ a xeeb kenn kon euh, xeebaate bokk na ci liy gën a yàq ak bokk ak li koy dog ponk bi nga xam ne it sëriñ bi indi na ko muy lii sabab dog ak bokk mu ne bokk na ci réere sa réere ko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 gannaaw bu ñu sante yàlla sunu boroom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem jullit yi ñuy seetaan ak di ñu déglu moo xam ñu ñuy topp ci site internet yi wala télévision yi wala rajo yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen balu ak di balu ak ñépp di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muhammadul Muntaxa Euh, mi fi nekkal xaadim rasul ak mbooleem njabootuk sëriñ Tuubaa yépp di nuyu mbooleem jullit yi fu ñu mën a nekk te di leen ndokkeel ci weer wi rawatina ci fan yi ñu toll di fukki fan yi nga xam ne mooy nekk ci digg bi di ñëwaat ci jataay yi nga xam ne euh, ñi ngi koy amal daayira Muxaddamatul Xidma di ko def di koor gi tàmbalee ba léegi tey jii di fukki fan ak ñett ci weeru koor ci atum 1441 hijriya dëppoo ak 2020 ñu tànn benn tomb boo xam ne tamit bu am solo la bu yitteel dundug nit ki te bokk ci njariñ yi nga xam ne nit ki war na koo xam bu baax a baax ngir euh, solo si nga xam ne am na ko ak àq yi nga xam ne am na ko muy asilatu rahim ahamiyatuha wa aadabuha njariñu jokk ak mbokk ak ay tegginam loolu nag eh, amul kenn kenn kenn ku ci mucc ci war koo xam ndax kenn ku nekk sunu boroom boole na la ak ay bokk ginnaaw bu ñu leen boolee ak bokk ci asal muy ñoom ñépp sunu maam aadama moo leen meññ ni ko sëriñ bi di waxe anaasu min jihati tamsili ak faw abuhumu aadamu wal ummu xawaahu wa in ataa bi faqrin min sabi asabin yufaaqiruuna bihi fa tiinu wal maau kon ñépp ak ay bokk lañ te suñu borom digal na leen ñu jokk bokk gi te rafetal ko kon loolu tamit niñ koy defee ak teggin yim laaj jaadu nañu jàngle ko moo tax euh, ñu tànn sunu mbokk mi di sunu sëriñ ci fànn gi di yarekat di jàngalekat di sëriñ Mbàkke Abdourahman ngeen miin ko ci jataay bi lool ñu ngi ñaan sunu borom mu kàttanal ko te wéral ko te guddal aw fanam ba yëngu yi nga xam ne mi ngi koy def yépp ngir jariñ jullit yi jariñit taalibe yi sëriñ bi sunu borom kàttanal ko ba mu gën a jëm kanam barke xadim rasul te ñu yàgg ko ànd moo tax moom lañ tànn incha allah mu war a indi tomb boobu war ñu koo tënkal tamit ci ñetti fànn ci ñetti anam bi ci njëkk mooy lan mooy ak bokk ci boppam euh, leeral tamit solo si nga xam ne am na ko ak àq yi nga xam ne mooy ci aju yooyu yaakaar naa incha allah su ñu ko tasalee bokk yi nga xam ne ñooy déglu ak di seetaan buñ ko bàyyee xel danañ ci bokk jariñu bu baax a baax kon ñi ngi jox kàddu gi sëriñ bi mu tàmbali waxtaan wi ak sëriñ bi bismillah aouzu billahi min alsheytaan arrajim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 di sof sama kàddu fii sëriñ Abdul Ahad daaneele ci siyaare kilifa yi tàmbulee ko ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa waaye di leen ndokkeel yéen waa daairatu muqaddamatul xidma ci taxawaay yu am solo yi di ñaanal mbokki jul yépp yàlla defal ñu tawfiq ak taysiir bañ mën a àggale ci jàmm xat-xat yi àdduna tollu yàlla teggi ko ci barkeb weeru tedd wi ak ñu baax ñi ko yàlla jagleel loolu nga wax nag sëriñ Abdul Ahad ak mbokk lu am solo la xëy na loolu moo tax mbokk yi xalaat ne nañ ko waxtaane laayante ci biir fàttalante ci ndax diine loolu la diinu nasiha kon ci biir laayante biir googu nag loo xam ne noonu nga ko waxe kenn mucc ci di ko waxtaane am na solo te ak mbokk mooy loo xam ne nit du ci mucc nit ku ne rek am nay bokk te bokk yooyu am na lu ko ci diine sant war ko ca bàyyi xel kon waxtaane ko jàpp naa ne am na solo ngir xamle ko nag duñ ci guddal dañuy leeral nit ñi rek ñu xam ne ñu bokk fuñ cosaanoo ñépp ñoo xam ne am na maam ju ñu xam joo xam ne ñoom ñépp ca la ñuy dellu kenn ku ne ci ñoom mën a lim sa càlla la ba jokku ca ñooña ay bokk lañ dana yaatu dana xat waaye daal mépp mbooloo mu daje ci barab mboolooy yi dit yoo xam ne mën nañoo tudd kenn ne moo leen boole nga xam ne bu kooku amutoon kenn ci ñoom du am ñooña ay bokk lañu jote ga wu dox seen diggante yàlla da koy sàmmlu yàlla da ca aj ay atte teg ci ay teggin yu bëgg ñu bàyyi ko xel kon ñu bokk ci deret la ñu bokk ci deret bu ko defee nag dana gën a dëgër suñ ca boolee bokk ci pas-pas wala suñ ca boolee bokk dëkk ndax lu ci nekk àqi boppam la te ñaari nit ñi li ci ëpp dañuy boole yëpp far bokk di ay bokk bokk di ay jullit waaye bokk benn barab ñu dëkk lu ci nekk di lu ñu war a sàmm di lu ñu war a taxaw kon ak mbokk noonu ku sëñ Abdoulaye waxe léegi ci cosaan ñëpp bokk ndax ñu ñëpp ñoo bokk soqi ci aadama alayhi salaam lu mu gën a yaatu nag gën a tasaaroo am ñu gën a jage ba ci bu ñuy wax bu ñu waxee bokk ñooñee la gën a jage nga xam ne xam ngeen la ngeen bokk ñaare buñ koy jëfandikoo foofu la ci gën a jublu ñoo xam ne ñu ne xam ngeen la ngeen bokk mais ci dëgg-dëgg nit ñi moom mu sori ak mu jege mu am ba ñëpp ay bokk lañ ndax kenn moo ñu meññ ñu aadama alayhi salaam lu am solo nag la ak mbokk lu am am solo la loo xam ne wolof yi dañuy wax ne ak mbokk alal yàlla wax nañ dëgg alal yàlla nag wari su ko foyee wari su woyofal wari su sàggane te loolu lu ñu wax ci seen làmmiñ la waaye loolu diine ko wax ak mbokk day lu yàlla dogal bokk na ci lii firndeel solom dogalub yàlla la boo xam ne amul kenn ci nit ñi koo xam ne mooy tànnal boppam fam bokk dangay juddu judd rek fekk yàlla boole la fenn yow doonoo ci dara mënoo ci dara loolu mooy wane ne dogalub yàlla te borom bi nag subhanahu wa taala du juum du jaawale lépp lu mu def noonu la wax na ci alquran ne yaa ayyuha nnaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa unsaa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu ni ngeen mel doon ay waasoo ki xeet borom bi neen maa ko jubloo noonu ngir bëgg ngeen xamante waaye ak la ci ginnaaw xamante ma waxit ni wa huwa alladi xalaqa min almaai bashara fa jaalahu nasaban wa sihra wa kaana rabbuka qadira moo bind ndox wala bokk ci ndox la binde nit ci ndox la binde nit def ko mu nekk ñuy jokk jolaatoo ci askan kenn di leen meññ loolu coobare sunu borom a ne tëwutoon yàlla subhanahu wa mu bind nit ñi kenn du ci bokk ak sa morom dara te loolu am na yeneen bindeef yoo xam ne bu ñu ëpp nit ñi toll na ne ñoom noonu nii leen yàlla bindee kenn ku ne yàlla ko bindee ba xum suqi ko ci kenn kenn suqi kowul ci yow borom bi ah, yonent alayhi salaam wax ne kullukum min aadam wa aadamu min turaab kon yéen ay bokk ngeen waaye nag al aqrabu awla dañ ko baax ko xamee ku gën a jege yaa gën a yey kon am solo gi mi ngi tàmbalee ci ne dogalu suñu borom ab jullit nag ngir sëg jullit mat bokk na ci ponki gëm yàlla gëm dogal yi nangu dogal yàlla dogal lim dogal ci yow ci bokk nga nangu ko xam ne fii la yàlla boole nga téye ko jàpp la loola laaj nga def loolu bokk na ci lii firndeel ak am solo waaye bokk na ci it ngir ñoŋal ak mbokk ngir ñoŋal ak mbokk ak sàmm ko tax na ay atte yu bari ci lislaam ñu tëral ko waaye boo dee ba ci biir loolu da nga bëgg sàmm ak mbokk kenn du ko jaxase kenn du ko jaawale kenn du yéegal kenn fu fu bokkul waaye kenn du génne kenn fu mu bokk atte yu bare bari la yoo xam ne bokk na ca li ñuy wax tabat nii yàlla ba mu koy araamal mën nañu wax ne xikma bi loolu ci la bokk tabat nii mooy doomoo aada ju yàgg xew la ba tey sax mi ngi xew ci ay barab jël nit def ko di sa doom yéegal ko ci sa famille mu àgg ci sax ngeen mën a doon doonante loolu amoon na ci jamono arab yi jamono yonentu yàlla muhammad alayhi salaam yàlla di ko yónni amoon na aada yi naar yi ci la bokkoon ci ñi ko aada woon ci lañ bokk moom yonentu alayhi salaam sax nag addoomoo zayd ibnu xaritha loolu lu ñu xam la ci siira waaye bi ndigal ñëwee ne uduuhum li abaihim huwa aqsatu inda allah fa in lam taalamu abaahum fi ixwaanukum fi diine wa mawalikum cala mbirum tabanni jeex kenn ku ne nañ ko askan fa mbokk waxoon wax nit ñi askan leen seeni wayjur bu ngeen xamee seen wayjur bu ngeen leen xamut seen mbokki pas-pas lañ waaye bu leen yéegal as kenn ci askan ween mu bokkul kon mel na ne bëgg na ñu xam kenn ku defam bokk ba dee su ko yéegal feneen loolu bokk na ci li ñuy dégg ci araamal guñ araamal taban nii ndax bu dul loolu nit mën naa bokk feneen ka ko jël dal koy féetale ci mu jox ko santam mu bokk ci njabootam bu ñu doxee tuuti léppay réer kenn duutu xam kan moo bokkoon fan lislaam bokk na ci li muy tere lool waaye it xam nañ ne li ñuy wax njaaloo Euh, lislaam da ko araamal ndax bañ bokk na ci li bañ doom ju ñëw ci àdduna te amul askan wu mbokk wu ñu xam te doomi njaalo mooy koo xam ne ci wàllu geño bokkul fenn yaay la am amul meneen mbokk mu ñu xam ci lislaam xanaa ñam bokkal ci wetu yaayam waaye des ko askan ci genn góor amul ay doomi baay amul ay nijaay ay ay ay yu ndaw amul ay doomi baay loolu nag fi la gàcce yem ba tax na lislaam araamal ko tëkkoo ci képp ku ko def mer rek ba wax lu mu wax te loolu bokk na ci ñaawteef yi gën a ñaaw asal ba sax àgg ci rëbbonte pour yaay jur doom ji teyit wax ju ñaaw ju nga wax dana la ci caw juróom-ñett fukki yar kon mel na ne bëgg ñu xam askanu nit ku ne fa mu bokk tax na ku ko bëgg a xañ nit yoon dal ci sa kaw loolu it bokk na ci solo si firndeel am solo gum am solo ak bari na ci lislaam yu ñu araamal ci sëy boo seetloo delluwaay ba ngir bañ ak mbokk yàqu ci la bokk bokk na ci araamal boole ñaari mbokk wala nit ak ndeyam ju ndaw wala nit ak bàjjanam ndax ak kujjee ñaare day indi ak ak féewaloo lislaam day tere boole ñaari nit ñu bokk ndey wala baay wala ñaari tere nit nga boole kook ndeyam ju ndaw wala bàjjanam ñu bokk génn bu mu sëy nga yorandoo leen ndax la ca mën a juddoo ci ak ku jégu yàq mbokk bokk na ci li tax ñu tere ko waaye it bu ñu seetloo ba ci biir danañ gis ne li ñuy tuddee ab daruriyatul xams nga xam ne dañuy wax ne li sharaa yi mës a ñëw jóge ci yàlla yépp sàmm juróom yooyu moo tax loola ak mbokk ci la bokk muy diine am xel bakkanu doomu aadama alalam waaye aw askanam ñu wax ne ci sharaayax yi amul bu ci boo xam ne ñëwul ngir sàmm juróom yi kon ngir bokk na ci li tax àtte yi jóg kon sàmm ak mbokk sàmm aw askan kenn ku ñu xam fi mbokk ak xam ñu mbokkal suñu borom it ci alquran ak làmm yonent bi ay salaam rotal ci yu bari yu koy firndeel bokk na ci li mu wax ne wattaqullaha alladi tasaaluna bihi wal arxama moytu leen yàlla te moytu ak mbokk moytu yàlla def ay ndigalam bàyyi ay tereem waaye moytu moytu leen ak mbokk ci di ko jokk te bañ koo dog ndax jokk ko njariñul neen la waaye dog ko it lori neen la loolu it bokk na ci liy firndeel ne am na solo ginnaaw yàlla ngi tëkku nit ñi ci nañ ko moytu bokk na ci soloom it loo am ci lu baax ak lu mën a doon say mbokk am nañ ci wàll woo xam ne danañ ko wuutale ñeneen ñi moo waral yonentu yàlla Muhammad bu ko yàlla yónnee bokk na ci lam ko waxoon wa andir ashirataka alaqrabin ñëpp la ko wooloo mu woo ñëpp ci diine woo leen a woo ci njub waaye da caa beral ab cër ay bokkam ne ñu ñooñu na leen na leen woo na nga leen ber xam ko defee it benn leen dajale wax leen lam leen wax leeral leen li ko yàlla yónni yàlla tagg it tag lool ñu ko ñu koy ñu ko fonk di ko jokk walladina yasaluna maa amara Allah bi ay yuusal ak yu bare bare yoo xam day firndeel loolu bokk na ci li koy firndeel li muy firnde liy am solo lu baax looy def lu jàmbi def ci nit lu baax foo ko defee baax na waaye boo ko defee ci sa mbokk moo gën saraxe dimbulee yu baax yooyu yëpp saa bu ko jàmm bi defee rek ngir yàlla am na njariñ waaye def ko ci sa mbokk nag moo gën def ko ci jàmbur moo taxoon yonent yàlla Muhammad alayhi salaam wax ne asadaqatu alal miskini sadaqa wa ala di rahimi thimtaani sadaqatum wasila nee na ab miskin aji néew doo néew ju doole nga dimbale ko boo ko saraxee saraxe nga de def nga lu baax tuyaaba ju waaye bu dee sa mbokk nag am nga ñaari tuyaaba tuyaabay saraxe ak tuyaabay jokk ak mbokk kon loolu it day firndeel ne eh, ak mbokk am mbokk na ci soloom lu baax langay def ci mbokk ga moo gën la ngay def ci jaamu rek yu baax yépp nag looy def rek ci lu baax def ci sa mbokk moo gën nga def ko ci jàmbur naka noonu danañ ci dégg it ne tooñ yépp ñaaw waaye tooñ sa mbokk moo gën a tarit moo gën a tarite moo gën a metti bokk na ci yi sabab nit ci tàbbi aljana ëllëg ci xadis bi wax ne yéen nit ñi tasaare leen nuyoo seen biir te fonk di joxe aw ñam tey jokk seenu mbokk tey julli guddi jamono yi nit ñi nelaw bu ko defee dangeen ngeen tàbbi na ci jàmm gis nañ foofu it ne bokkoon na ci yi tax nit ki bu faatoo tàbbi na ci lu dul mi ànd ak benn coono doomu aadama it liñ gën a bëgg bokk na ca wërsëg bokk na ca fan bu gudd yonentu yàlla yonentu yàlla muhammad alayhi salaam nee na jokk ak mbokk da koy maye dana tax saw fan gudd dana tax sa wërsëg yokk nee na man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa lahu fi athari fal yasil rahima loolu ci aw yëwum la bokk day tax a gudd fan day tax sa wërsëg gën a yaatu euh, yàlla yit réyal ko lool am na xadis qudsi bi wax ne yàlla ne man maa yàlla maa tudd rahmaan ci tur woowu di rahmaan ci laa xare turu ak mbokk muy rahim képp ku ko jokk ma jokk ko man yàlla ku ko dog ma dog jokku yàlla nag mooy xéewal ak mucc àdduna ak alaxira eh, dogu yàlla nag mooy yàlla xañ jàmb yooyu yëpp yàlla na ci yàlla musal kon loolu it day firi am solo gu mbokk am solo mbokk yi ak mbokk yi doole la kaaraange la nit ku am ay ay ami bokk ànd ak i bokkam loolu doole la kaaraange la lépp lu mu soxla bu ànd ak ñoom mën na caa jot lépp lu mu ragal bu ànd ak ñoom mën na caa mucc gis ngeen yonent yàlla Shuaybu alayhi salaam bi yéefa yi dikkee di ko sàkkal pexe bañ jaaxle gis ay bokkam wër ko wax nañ ko loolu ne ko walaw laa raxtuka la rajamnaak wa maa anta alaynaa bi sa mbokk yi rek mooñ jaaxal ñi la wër ànd ak yow waaye bu doon ñu ne yow dong moom ñu sàkkal la pexe moo taxoon xakim ba waxe ne axaaka axaaka inna man la axaa lahu ka saan ilal hayja bi gayri silaahi na fonk sa mbokk na nga jàpp say mbokk ndax nit ko buti bokk moo kuy dem ci xare te yorut nga nay ñooyam man naa am ak fa jëm moo ko tey ñàkk bakkanam kon ku an amuti bokk wala jàppoo say bokk néew doole kon am na solo ci bunt boobu moo taxoon imaam ali karamallaahu ci daan wax naan nit ki na nga teral say bokk ndax boo doon picc ma ne la ñooy laaf yi ngay naawee fa innahum janaaxuk alladi tatiiru alladi bihi tatiir kon ñooy sa doole nit ki ay mbokkam ñooy dooleem moo tax muy lu am solo moto tax bàyyi xel mbokk googu nag mbokk yi am solo noonu rëy noonu ci lislaam moo tax ay àq yu bare bare aju nañ yoo xam ne nit ki war na koo xam war na koo sàmm ci rafetal sàmm goo xam ne day ànd ak teggin yu mucc ayib yu tax mu jariñu ci tëdd ci loru àq yi aju ci mbokk nag yu bare bare la yoo xam ne baax nañu di ko fàttalante ndax nit ñi jox ko àq jëm yeyoo waaye jox ko yitte giñ ko war a jox ci yitte woo ak mbokk bokk na ci ay àqam dañ ko war a xam dañ ko war a xam nii jamono doxe nga xam ne nit ñi àgg nañ ci fi mu ne duñ lijjanti kenn la bokk kenn léegi daal loo am ngay wut ak noo ko amee koy séqal ku ne la ngeen séq mën naa am mooy doon mbokk ko far bu jeexee jeex te fekk daa am ñoo xam ne moom bu ngeen séq bu ngeen séqut yàlla leen boole sant leen ngeen doxal bokk googu kon dañ ko war a xam moo tax mag ñi dañ ko doon jàng di ko toppatoo di ko lijjanti kenn ku ne ñu xamal la say bokk bu dee gone gu ndaw mag ñi bu ñuy dem di ko yóbbaale ngir mu xam ne ñu di bokkam boo léegi mu xam ne ay way juróom kër ñi lañ daan jaxasool ñu leeral ko lañ bokk mën na wéy di ko jokk moo waral taallamu min maa tasiluuna bihi ko xalis bi wax ne na ngeen jàng ci seenu askan loo xam ne dangeen ci mën a jokk seenu mbokk kon ndigal la nit daa war a xam ñu mbokkal nit daa war a xam ñu mbokkal sàggane ko nag tax na am nit dina jege lool te du ngeen xam lu ngeen seq fekk lu bare boole àq yu bari nar a sànku ndax mbokk gi nga waroon a xam te xamoo ko moo tax Seydina Omar wax nañ daana wax ne radiyallahu anhu taallamu nasab fa ruba rahim majhula qad wusilat bi arifaani nasabi deel ko jàng ndax xam ko dana tax ñu mën a def ndigalul jokk mbokk kon lu ñu war a xam la xam boobu nag ñaari xaaj lay séddale ko dana nekk waajib bu dee maxaarim ñu tudd ay maxaarim moom nit ku ne daa war a xam ñi doon ay maxaarim loolu farata la ñi nga xam ne mënu leen dencante bu dee góor jaan jigéen ñu mën a dencante ci sëy kenn ku ne war ngaa xam ñi nga bokkal ndax umpule ko mën naa waral bàkkaar wala daf lu daf lu yàlla tere nit ku war naa xam ñi mu séqal ndono moom ñan ñoo koy donn wala ñan lay donn loolu lu war a xam ne ndax ay acte da ca aju ne war naa xam ay kilifaam ñan lañ jigéen cib sëy du maye boppam jàmbur du ko maye te kilifaam ne fi kon loolu war nañoo xam kilifa yu ñan lañ ci mel noonu nga xam ne ay àq ca aju ak i atte xam yooyu farata la ci ci julli bu ne jullit bu ne war naa xam ay maxaarimam xam ñi war a nekk ay war a saam xam ñi war a nekk ay awliyaam wala moom mu doon ko ñi ko ñi ko séq daal ñi tawaaruf dox seen diggante wala walaa dox seen diggante wala ak mahramiya loolu moom kenn ku ne da ko war a xam lislaam du nangu nit umpale loolu ndax umpale ko am na àq yu ci aju wala am na àtte yu ci aju yoo xam ne mën naa jur bàkkaar mën naa tax def nit ki def lu mu war def yi ci des yëpp nag ki mbokk dañ koo sopp moom sopp nañ nga xam leen ndax it euh, jokk ko ca nekk nga mën koo jokk euh, bokk na ca loolu yi ak ak ndonnonte xam nañ ne euh, bokk na ci solos ak mbokk ñu war koo xam war koo jàng ci donnonte ci mbokk lay am ci lislaam nit bu faatoo lam bàyyi ci àllal am na ay mbokkam ñoo xam ne ñoo ko war doon ñooñu ne bu leen xamut kenn lijjantiwut ak mbokk àq dana sànku te àq bu sànkoo nag bu ëllëgee ay daan dana tegu ci kaw jaam kon ñu war a xam ñu war a doonante war a xam kenn ku nekk la araam ba boo doon wuti soxna boo dee góor doo dem doo dem denc ku la araam waaye jigéen du jaxasoo ku ko araam ci wàllu soxo ci wàllu wàllu dencante te yii ñu wax ni yëpp umpule ko tax na am na ci barab ay nit ñu ànd te fekk waruñoo ànd ndax lan xamuñ lañ bokk dox daje lay jaxasoo na cib sëy ba mu yàgg ku leen xam ñoo xamal leen ne yéen ñaar ñi ànd war leen ndax yéen bokk nàngam loolu gàcce la yaraanga la kersa la boo xam ne jullit war na ko moytu te nag sàggane ak mbokk dana waral loolu jamono ji nga xam nit ñi dañuy tuxu di bari dëkk yi dëkk yu rëy yoo xam ne ay mbokk mën nañoo ne ci benn dëkk duñu xamante loolu ku ci sàggane sa mbokk mën ngaa dox ba say njaboot jaxasoo ñoo xam ne waruñoo jaxasoo ñu ànd te waruñoo ànd ndax umpale seen mbokk boobaa nag ña sàgganoon ñëpp ca loola danañ bokk ci daan ya loolu moo tax moytu la naka noonu kilifteef gi ñu wax léegi nga xam ne jigéen am na fu muy toll bu ñu koy mayee kilifaam moo koy maye bu fa ja kilifa nekkee jaamur waru ko maye kon xam kii kilifaam ba saa yi waree dem kër kooko ñëw daf taxawaay yam war a taxaw loolu it ci ñu war a bàyyi xel la bokk bi ci des it xam nañ ne ci lislaam ni mu tërale nit bu defee bu faatee bakkan yàlla tere te tëyu am na ay daan yu ca war alal ju war a fay ñu koy tudde di ci lislaam dee jooju dafa am ku ko war a joxe ak ñu mu koy bokkal mooy ki lor bakkan te tëyu ko moo ki bokkam ñoo ki bokkam la lislaam wax ñoo war a dajale joxe alal jooju alal ju bari lay doon léeg-léeg ndax dara ma téeméeri gëléem léeg-léeg su boobaa nag nit ki bu xamul ñam bokkal dee su ko mën a lijjanti te it ci fiq fuqahaa yi dañuy wax ne juróom ñaar téeméeri góor yoo xam ne menn maam muñ soq ko ñoo ko bokk ñoom ñu war a dajale dajale alal jooju fii nag dana jafe lool nit ki mën a lim xam ci bokkam lu jege loolu ci sàggante la waaye loolu day firi ne kon kenn ku ne lu jege juróom-ñaar téeméer ci sa mbokk ci wàllu geño war nga ko lijjanti ba xam leen ndax bu jaay yi amee ñooñu fu ñu mën a nekk dañoo war a ñu jàpp ci euh, fexe ba nattu boobu ñu tegge ko doonte fekkiwuñ ba nga koy def doonte yëguñ waaye àq la ñu ànd ko yow loolu lislaam moo ko gàlle loolu nag bu bu ñu xamul mbokk duñ ko mën a xam te yooyu nag yu mata la jënt la mbokk yi ndax bare na luy xew lool daa ko faral di wax accident yi am ab dawal dawalkatu oto njuumte am mu daan dawal oto daaneel ko mbooloo faatu ca ñooñu ci faatu ñëpp dañuy jàpp ne ray lañ dañ leen ray ci tëyu ko kon war nañ joxel diyee moo ki bokkam moo ki bokkam kon ay nit a ngi faatu yóbbaale ay yàq yoo xam ne xamuñ ko ndax dee ju ñu waroon joxe te joxewuñ ko yooyu yëpp nag lu ma tamaytu la lii tax ñi man cee mucc nag mooy fexe ba xam suñuy bokk ba lu xaweete ci yu mel nii la ca war lislaam santaane ko ñu man koo def nit ñëpp mën a wàccoo ak àq yi nga xam ne moo war ci mbokk gi bi bokk na ci li ma ta bàyyi xel ci mbokk moo di ne kenn du askanu foo bokkul daa bokk ci àq yi ak mbokk am kenn du ko kenn du ci génne nit kenn du ci tabal nit askan wi nga bokk amoo sañ-sañu génn ci kenn waaye amoo sañ-sañu tabal ci kenn loolu lu ma ta bàyyi xel la yontu yàlla yontu yàlla muhammad alayhi salaam nee na ku woote woo ci lislaam baay boo xam ne du sa baay te xam nga ne du sa baay xetuk aljanna xaram na la kon nit du ne ma diwa jur te diw juru ko askanu foo xam ne bokku fa dafa bokk li aram bi lislaam man iddaa aban fi lislaami gayra abihi yaalamu annahu gayru abi fal jannatu alayhi xaram ndax lëntal la jaxase ay askan la waaye neena it jigéen ju tàbbal ci aw nit ku ca bokkul séqatu yàlla dara te yàlla it du ko tàbbal aljanaam wax na ko ci jigéen joo xam ne dafa saxal ne doom ji diw ko jur te diw moom a jurul doom ji kon tàbbal na ci askan wi ku ci bokkul yonent alayhi salaam nee na fa laysat minallaahi fi shay wa lan yudxilaha llaahu jannata waxe ne gépp góor goo xam ne daa wet di doomam jàkkaarloog moom di ko xool wan ko di ko jurumale te xam na te doomam bu yomal xiyaame ba yàlla di xool nit ñi bët yërmaane yàlla da koy du mooyu te dana ko gàcceel ci kanam nit ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi wa ayuma rajulin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilayhi ihtajaba allahu minhu wa fataxahu ala ruusi al awalina wal axirin yowm alqiyaama muy ay tëkk yu rëy rëy yoo xam ne nit nga génn ko ci askan dana ko waral kon nit ku weddi doomam jur ko ba weddi ko loolu lay lay la la la ci wala soxna su am doom wala ne ci barab dafa sëy làqutu daf lu mu daf ba am ca doom askan ko boroom këram kooku yonent bi salaam nee na ñooñu yàlla du leen tabal aljanna ndax lënt bi ci nekk di lënt askan daf ñaaw téef la ba noppi nag ñaaw téefa law di wéy nii ki ñu ko askan fu mu loolu lu mat a moytu la te lii tax ñu mën ko moytu nag mooy bokk na ci xam ko waaye bàyyi ko xel baax a baax donte nag xam nañu askan li ñu am am solo mbokk yi du lu sukkandiku nag réyal ko réyal goo xam léeg-léeg ni ma am ci barab bu saw askan rafetee rek nga jàpp ne lépp nga bu asamaan si doon wàcc man nga koo dékku askan wu baax ab yóbbal la su ko nit ki amee am na yóbbalu dem ci ci yoonu baax ndax ñu baax ko wër ñu xam leen bu dee ñu baax waaye nag jëf mooy musal nit ginnaaw yërmande ci kaw yërmande yàlla moo taxoon xakim ba waxoon ne la amruka mal insaanu illa bi diinihi fala tatruki taqwa tikaalan ala nasab na nga xam ne doomu aadama diineem lañ koy xoole bul bàyyi mukk taqwa bul bàyyi mukk tënku ci ndigal yàlla yi ngir sukkandiku ci askan wu baaxoo bokk laxad rafaxa al islaamu salmaana farisin waxad wadaa shirku sharifa aba lahab di wax ne lislaam day yëkkati na salmaan ma nga xam ne ab ca faris la bokk waaye kéefër ak bokkaale yàlla daaneel na sharif sharif bii di abu lahab nga ne bu dee ak ab sharif la ndax ci askanu yonent yàlla Muhammad alayhi salaam la bokk bu doon ci noonu dañuy wax ne Salmaan am ñag la ci àll ba la jógee waaye moom diinee ko teral Abu Lahab mi doon ca kàngame ca tànneef ya weddi yàlla moo ko toroxal kon ñu xam ne askan baax na waaye nag du lu ñu sukkandiku moo tax am koo xam ne fa laa tahsabil ansaaba tunjiika min laza walaw kunta min qaysin di abdi madani bul jàpp mukk ne askan wu baax dana la musal ci sawara ak fa mën a bokk nag daan ne abu lahabin fi naari wa hubnu hashimin wa salmaanu fil firdawsi min xarasaani abu lahab de ma sawara te doomi hashima de maam yonent bi alayhi salmaan ma jógewoon ci àll ba kenn xamul ko jur ma nga ci biir àjjana ya kon jëf ak gëm am solo moo taxoon yonent yàlla muhammad bi ndigal wa anzir ashirataka laqrab bi ne wàccee daa dajale quraysh yéeg ci kaw safaan woo leen par kenn yaa bani fihr ya bani oday di tudd kër ba ñëpp daje mu wax leen wax ñu sid ya machara quraish daal wax ne ya bani kaab ibnu luay anqidu anfusakum min an naar ya bani murra murrat ibni kaab anqidu anfusakum min an naar di tudd par kenn ba ci ay doomam yaa fatimata yaa fatimatu binta rasulillah salini min mali ma shit la ughni anki min shay'a ndigalu yàlla laa ngi nii kat wuy si leen ci ku ci wuy si wut mën lu ma la dara waaye téewut ba mu noppee da caa teg ne xayra anna lakum rahiman sa bulluha bi balaaliha mbokk gi moom ak lu mën a xew wuy si ngeen ak wuy siwu leen mbokk gi dina ko jàpp dina ko dundal loolu day wane ne sa mbokk sax bu dee yéefar ak du du teggi aqi mbokk yi donte bi yéefar la ci waa kër yonentu ay salaam am na ñoo xam ne seeni mbokk dañu daan dikkal duñu ay jullit waaye buñ tàggoo yonentu dañu wax ne teral leen leen dalal leen ndax dundal mbokk gi kon mbokk àgg na ci dayoom ak dooleem ki nga bokk donte bi la du teggi ak mbokk ci yow faw war nga ko jàpp mbokk laay biiree ko dimbaloo ko ci wet gi nga tànne ndax dundal mbokk kooku ndax yàlla la neex loolu di lu am solo euh, moo taxit ñu man war ko war ko mën a bàyyi xel war di ko war di ko di ko suuxat kon lu mën a xew lu mën a xew ñi nga bokkal say bokk lañ ngeen bokk pas-pas ngeen bokk dëkk wala yooyu yëpp bokk leen ko waaye nañ xam lu ñu war a dundal kon rawatina ñun suñ barab yi nga xam ne moom mën nañoo wax ne ñu fi bokk far ñoo bokk lépp kon dundal ko waroon naa yomb ginnaaw bu ñu bokkutoon sax pas-pas teewut dundal mbokk day nekk warteef ci noonu rawatina bi ñu yàlla boolee ñuy dëkkandoo day bokk deret bokk luñ gëm kon dundal ko war naa jàpp kon ku ne ci noonu war nay dox ci lu koy suuxat di ko dundal waaye moytu lu ko yàq yi bokk na ci ak mbokk war koo jokk war koo jokk ak moytu di ko dog jokk ko farata la dog ko dafa xaraam bu ñu doon tënk nag lan mooy jokk mbokk man nañoo wax ne mooy lépp loo mën a jariñ sa mbokk nga jariñ ko ko loo ko mën a fanqal ci safaan nga fanqal ko loolu mooy jokk mbokk lépp loo mën a jariñ sa mbokk ci wiiw nga jariñ ko kon ku mën a jariñ sa mbokk te jariñoo ko jokkoo mbokk waaye loo ko mën a fanqal ci safaan it nga ko ku mën a fanqal sa mbokk safaan nga seetaan ko boo safaan ci kawam jokkoo mbokk buñ ko tënk loolu la wax sa mbokk mi lépp loo ko mënal ci aw yiw defal ko waaye loo ko mën a fanqal ci safaan fanqal ko bu ko seetaan mu ne ci fitna nga mën ko dindi nga ne bàyyi ko rek ak lu mën a xew ak lu ngeen mënoon séq bu nekkee ci jafe-jafe yoo xam ne mën nga ci dara sa diine mayitu la nga toog di ko seetaan boobaa da ngay dugg ci biir ñi jokk ñi dog ak mbokk te yàlla tëkku leen jokk kooku nag waajib la ci maxaarim yi loolu boroom xam yépp nañ ci boroom xam-xam dañuy dëppoo ne almaxaarim jokk leen waajib la ku ko dafa da ngay am bàkkaar bu dee ñi ci des nag ba tey waajib la alal mashhur lay moom ittifaax da ca am ñi nga xam ne duñ say maxaarim say mbokk lañ waaye àgguñ ci nag doon ay maxaarim ñoom it jokk leen farata la kon dem mel na ñëpp la war a jokk te loolu it bokk na ci li yonent salaam daan dénkaane abu dhar radiyallahu anhu waxoon na ko awsaani xalili bi silati rahimi wa in adbarat nee na sama xarit ba yonent yàlla muhammad dénkoon na ma ne ma naay jokk ak mbokk doonte mbokk gi dafa dëddu dañ ma wan ginnaaw maanaam ci lislaam xamu diw sama mbokk waaye defuma nangam kon duma ko def nangam déedéet da lay sant ngay jokk ak mbokk donte mbokk gi dala wan ginnaaw donte dañ lay tooñ it yow deel rafetal jëme ci ñoom donte dañ lay wan ginnaaw yow deel deel deel jàkkaarloo ñoom loolu muy diine kon doonul loo xam ne dañ koy fayonte boo ma defalee ma defal la ak yàlla ju yàlla gàll ci saw li war ci sa mbokk daal bu ko mbokk doxee doxal su ko mbokk doxul doxal yow loolu la leen sant te it nag am mën naa am soo ko rafetalee moom mu ñaawal bu doxee tuuti dana yeddu wëlbatiku nga jariñ ñaari yoon ndax dana dund mbokk moom itam te it ci yow la ko jaare te ku gindi nit teg ko ci yoon am nga teewa ju rëy rëy am na xadis bi wax ne bi yàlla bindi ak mbokk ba mu noppee mbokk daa taxaw ne day làqutu ci yàlla bañ ko ko dog borom bi ne ndax gërëm nga ma jokk la jokk dog ku la dog mu ne ko waaw borom bi ne may naa la loolu bi ko yit aleyhi waxee da caa teg ne iqraw in la qawlahu taala fa hal asitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladina la'anahumu llah fa asammahum wa a'ma absarahum gis ne kon eh, ñàkk jokk ak mbokk loolu yu bari ci nekk wax na ci xadis ne amul benn bakkar boo xam ne boroom yeyoo na yàlla gaawe léegi mbugal fii ci àdduna ak lam koy dencal bu yomal xeamee ñaar amu ci bak yeyoo ñaar mooy bew ak nag dog ak mbokk nee ñaar yi moom képp ku koy def yeyoo léegi mbugal bi yàlla wàcc sa kaw ak nag mbugal ma lay xaar boo liggéey kon mel na ne jokk mbokk mën naa daal di wàcc léegi mbugal ci nit ndagg ay mbokkam yàlla daal koy alak léegi teg ko musiba teg ko tis wu rëy te du ci yem bu yemal xaamee mu teg ko yeneen daan kon mën naa moytu ngir loolu kon lu am solo la àq yu baree bare ci aju yu mat a taxawee mat a topp mat a mat a bàyyi xel loolu nag moo ñuy dugal ci ñu xam àq yooyu nga xam ne moo war ci mbokk gi war koo xam war koo jokk ñu ko war a xam war koo jokk kon ñun ñi def yitte ci xam seen i mbokk loolu mag ñi defoon nañ ko yitte woo lool seeni i mbokk ndaw lu ñëw seen mbokk mu ñëw dañ leen kii sa nàngama fexe ba la nga boo lëgee boo dajee tey moom xam ne si nàngama yooyu nag kii nit ñi sàggana léegi ba mbooloo dañuy daje jege lool ba tàggoo kenn du xam daray xew kay àdduna boole leen ngeen di lijjanti ba far yëg ne nekk ay bokk ngeen yaraa nga dox ci diggante ba loolu lu ma ta bàyyi xel moo tax lii tax nag ak mbokk yu mën koo jokk wala bokk ngir jokk am fawu yi di am fawu yi di am fawu mbokk yi di siyaarante ay nit duñ dëddoonte ci lislaam sax siyaar dafa am solo kon bu ñu nekkee barab bu nekk di nemme loolu bokk na ci lañuy ñuy mën a jokke ak mbokk di siyaarante jóg seeti sa mbokk mag ñi baaxoon nañ ci seen seenu seeni doxin bu àdduna xata it bu ñuy tukki duñu romb ab dëkk fu ñu romb mbokk fi rek dañ fa jaar nuyu ko door a jàll moo tax seen yoon dawut gàtt faw day gudd ndax dañ ci profité duñ dara ci mbokk gi ginnaaw jóg yombul bi ci desit di ganante ji siyaare la ganante di woo ay nit ñu gane si la waaye nga gane ci ay nit siyaare ji ay dem fekki waaye war ngaa jékki-jékki rek dajale say bokk ni leen bi sàngam bëggoon naa ngeen ñëw ci kër ga ndax njariñ la dundal mbokk gi njaboot ga xamante nga nuyoo leen waa kër gi kenn ku ne xam ne yow mii kat li ngeen seq bu ëllëgee ku ci dajeek moom wala nga dajeek ku bokk ci kooku ngeen xam la ngeen bokk ak nag di bàyyante xel di nemme di xam li sa mbokk nekk doon ci gisoo ko di gëstu ay xabaaram saa yu nekkee ci lu baax aw yiw boo ko mën a jot jot ko ndokkeel ko su nekk ci safaan boo ko jot defal ko am sa mbokk kenn ci yéen yitteelu ko ngeen toog ay at kenn du laaj mbokk ma kenn du ko lijjanti bu ngeen dajee du ngeen weesoo gën na la gis loolu ci lii ak mbokk la bokk lu ma tamaay xel la ak nag di jàppale bu sa mbokk nekk ci tiis nga jàpp ca ko seetaan di wax ak moom ay mbokk yu toog ci barab kenn ku ne ne ca lam ne kenn du wax ak kenn loolu daf safaanu jokk mbokk dañu di waxtaan di joxante ay hadaya islaam noonu na dee leen joxante hadiya daana tax ngeen bëggante addiya nag dara jëru ci xeeb loo mën a joxe rek joxe ko ngir yàlla moom la ak di saraxe hadiya ki nga koy jox mën na ko bañ a aajowoo waaye yow dëgëral mbokk moo tax sarax nag ku aajowoo lañ koy jox kon ñi am te say mbokk nga di leen jox hadiya ñi amul ci say mbokk nga di leen sarax di feeñal ak mbëggeel sa diggante ñoom ak di feeñal yërmaani ak wegeel di bokk ak ñoom seeni naqar ak di bokk ak ñoom seeni mbëgte kenn ku ne ci ñoom it nga di ko wàcce wàccu waayam ba mu yàlla lu mu doon ci yow nga nangul ko ko bokk na ci liy yàqu mbokk nit ki doon ci yow loo xam ne nangoo ko jox ak lu mën a xew gi ginnaaw yàlla leen boole bu dee sa baay bu ndaw sa baay bu ndaw nu mu mën a mel rek ba tax nga xeeb ko it loolu dogalu bi yàlla yàlla dogal muy sa baay kon jàppe ko sa baay moo gën ci yow nangu dogal yàlla la ca warit ci taxawaay nga taxawu ko bu ko defee nga am ci aw ku ne doon ci nga nangul ko loola di jëflanteeg moom ci noona loolu day bokk ci lislaam santaane ku ci wopp nga seeti ko ku ci faatu nga ànd ci rob ba ñaanal ko ku la ci woo nga wuy si ko mbokk boo dégg mu yàqu nga dox ci lu koy defar bañ a bokk ci yàq mbokk waaye di ko defar ñaar ñoo dégg ñu ne diw ko ay bokk lañ waaye daa mel ni ñoom daa am aw dig wu dox seen diggante nga sol sol daal téere yi dañuy wax ne wax lu amut bàkkaar bu rëy rëy la ndax day yëngal aras waaye wax lu amut ngir defaree ak mbokk dañ ne dagan na moom ci la bokk wax lu amut ngir defar ak mbokk loolu day wane lu mat a bàyyi xel la ak di leen ñaanal ñoom mbokk yi ak nag di leen digal aw yiw di leen tere ab safaan bokk na ci liñ jokki mbokk yi sax mbokk moo romb mu ne ci lu dul noona ñu wax la nga ne ah ba ko sama yónneewul ci moom jokkoo mbokk da ko war a digal tere ko waaye nag bil xikmati wal mawizati al xasana moo ci am solo kon mbokk yooyu yëpp luñ mën a jokki mbokk la yow kat da ngay sama mbokk ma gis nga def loo xam ne dañ koy tere xam naa da nga koo xamut moo tax defoo ko moo tax nga di ko def laa biiree ko dana la gërëm xam ne yow mi yéeneen ko aw jàmm waaye saa boo ko rombee muy def lu noonu nga seetaan ko day mel ne sax da nga ko yéene musiba dal ko te ab jullit nag du yéene mbokkam musiba dal ko ak jullit du yéene mbokkam musiba dal loolu bokk na ci yiñ mën a jokki ak mbokk mbokk yi kon di digle lu baax tere safaan lu yàqu ci mbokk gi it nga di ko defar bañ bokk ci yàqu mbokk di toxal ay wax di ko jaxase lépp loo dëgg ci mbokk te xam ne boo ko nettalee mu ñaaw lislaam dala koy tere nga di ko nettali ndax boobaa rek yaa ngi jokkale ay wax ak mbokk mën na caa dox yàqu jamono yëpp nag jamono yu nu toll ci la jokk ak mbokk gën ndax jumtuwaay xaral yi nga xam ne léegi bu dem ak dikk yombatul waxtu wu ne mën ngaa xam say mbokk lañ nekk tey xeeti group yi yi am ci jumtuwaay xarala yi ak réseaux sociaux yi mbokk yu bari ña ngi cee daje di waxtaan di séq seen mbir te fekk kenn jógut fa nga nekk loolu passé la boo xam ne julli ñi dañ ci war a profité ngir dundal seen mbokk ñi xamante wutoon xamante ñi joxasoo wutoon jaxasoo ñi daawut am lante am lante loolu moom lu jàppandi la loo xam ne ñëpp ci war a profité fexe ba dundal mbokk yi ak sax di ko jàngale jaadu woon na tey njaboot gu ne am ci seen mag moo xam ne loolu mooy doon wàllam di jàngal nit ñi ñañ bokkal ñañ bokkal askan wi mag yëpp dañu amoon ay ñu mel noonu ku ci juddu dañ la xamal fi nga bokk xam la ñi nga bokkal koo ci dajal xam li ngeen bokk Serigne Moussa Ka radiyallahu anhu ci yenn mbindam wax na. bi muy leeral Askanu Mbàkke àgg na ci sax di wax la tàmbale ci maaram ba jamono yooyu mu wax ñaata nit ñoo fi sant Mbàkke loolu day wane ñor gum ñoroon mag nit ay téere yu bari lañ ci bind loolu nag askan yépp ñoo ko soxla ndax dundal ndégalul yàlla ak man koo jox woon ma baax na loolu nag ci Sénégal bari na ay mbooloo ak i kuréel yu tudd jokki mbokk nga xam ne ay tour de famille lañ koy tuddee lu am solo la waaye nag fexe ba di ko cuub cuubug lislaam ndax léeg-léeg dañ koy doxe noo xam ne borom dooy dong lay doon wala borom man-man yi dong wala borom xam-xam yi dong te nag njaboot gu ne nag ñëpp ci nekk moo tax ñëpp ñu leen ci yaatal ña xam di joxe seen xam-xam ña man di joxe seen man-man ña am di joxe seen am-am bu ko defee lépp mën a ànd kenn du xeeb kenn ci anam gu mel noonu lu am solo la loolu nag jokk mbokk kooku nag li ci dimbale yu bari la bokk na ca rek. loo xam ne mën naa dimbali nit ci mu mën a jokk mbokkam rafet njor bari waa ne lu ngeen dëgg ci ak mbokk yàqu ñaaw njort ko yàqu ab julit day rafet njort ci ay bokkam lépp lu ñu def ci sa mbokk bu amee benn bunt boo ko mën a firee pirim rafet nga firee ko noona ndax doomu aadama yi noonu leen yàlla bindee dafa mel ne bët lim lim gis li mu bëgg a gis ak lay gis saa booy xool dara di ci gis di ci séenu lu ñaaw lu ñaaw nga cay gis waaye soo koy xool di ca séenu lu rafet mën nga jage rafet kon di rafet njortu ci tasarufaat yi am ci nit ñi ci misaal léeg-léeg ni romb la nuyuwu la jàll boo ko firee ne daam lu ma xamal moo ko tey romb na ma fi nuyuwu ma waaye boo nee gisuma xam naa ne bu ma gisoon dana ma nuyu rafet njortu ngoo wax nañ leen Cheikh Mamadou Fadl radiyallahu anhu nit ñëw na ci moom ne ko diw day buy julli daal da koy yàggal lool mel ni bëgg xam naa sëñ bi jàppale loolu daal mu ne ko ah bëgg ko jox àqam rek nee na beneen bi mu ñëwati ne ko ah diw moom julleem nga dafa gaaw ba jëgg dayo mu ne ko xanaa day bañ lu dara lu ko lu ko yàqal rek mooy lu ne rek mënees na koo taywil taywu rafet ndax jëf ju ne am na bët boo koy xool mu nekk lu rafet kon loolu bokk na ci lii dimbale nit ci mën a jokk ay bokkam liy xew ci sa mbokk lu nuru lu dul noona bu ko jàppee noonu firee ko pir mu rafet te soo demoon sax ba am lu leer ci ne lii la da war a dox ay jéego ci saafara ko ay waroo seetaan waroo koo def jàpp buntub dagg si ak seen mbokk ndax al amru bil maaruf ak an nahyu anil munkar day bokk ci li la war ci diggante sa diggante moom bokk na ci lii dimbale jokk ak mbokk bëgg-bëggalu doomu aadama du wax ne diw tey tey dinaa ko bëgg ndax doomu aadama doomu aadama la yàlla day bind nit ñi lii di la neex lii di la naqari am na ñoo xam ne neexuñ la te bu ne laajoon lu tax neexuñ la mën a wax dara waaye nag bëgg-bëgg lu del bëgg-bëgg lu naj sa xol lu la nit ki soof-soof fexe ko safoo bokk na ci melokaan yi sëriñ mag bi radiyallahu anhu safoo ku ko soof ku dul kuy may boroomam safoo ku ko soof ku dul kuy may boroomam kon loolu daa bokk ci jikko yu baax yi nga xam ne bul ne rek diw moom neexuma fexeel mu neex la forcer sa bakkan di ko bëgg bëggalu te it nag bari na ñoo xam ne bëgg bëggalu moo tax ñu bëgg ci àdduna bari na yoo xam ne ci njalbeen ñaari ñuy jaxasoo mel ni mënuñoo tàggoo te fekk ci njalbeen seen diggante leneen la woon bari na nit rek lu muy jëfalanteel fonk lool mel ni mënut mënutu koo nag ci njalbeen da ko bañoon léeg-léeg gis ab sëriñ bu boo xam ne day wax ne ñamu ñeex moom neexuma waaye day dem ba mu yàgg mu mel ne mënut tàggoog moom miin la kon bëgg bëggul dana tax a bëgg bëgg bëggulu dana tax a bëgg kon loolu bokk na ci liy dimbali ci sa mbokk bu la xasee leer ne sa mbokk lépp lu ne ci moom lu soxal lu nux nux rek xeexal xeexal ak moom bëreel la moom fexe ba mu jeex ba nga bëgg ko ngir nga mën a dundal mbokk dox sa digganteek moom bi ci des it ak di ko yittewoo nag mbokk dañ ko yittewoo na ci li ak mbokk ñàkk leen jox yitte ñu romb la nuyu la faale woo leen wala bu ñuy wax yow doo doo leen déglu loolu bu ñooñu bu mel ne yow rek daan ne man kii kat banaa dama doon dox ak mbokk ci moom waaye gis naa ne mbokk bu ñuru ngeen daal di dagg ak mbokk it ñépp ngeen am bakkar kon ittewoo sa mbokk di ko bàyyi xel fu mu nekkut soo ko gëjee dégg laaj ko soo ko gëjee gis jokkoo moom di nemmiku mbiram saa boo gisee mbokkam nga laaj ko mag ngi baax ñëpp kër foofu la nekkoon saa masaan dajeeg sa mbokk ku mel ne Cheikh Abdou Khadre Mbacké radiyallahu anhu nit du ko nuyu mukk bàyyi ko ci barab mu xam fa ay nit ay mbokkam si laaju leen faaw mën ana diw diw am na ci ñoo xam ne sax ci moom lañ xamee ni diw sama mbokk di ko jokk ndax da nga nuyu ko mu laaj la ko te fekk yow si xawum dara mun ne ko ah, sa mbokk de moo nga doxe ca dundal mbokk jàpp loolu it bokk na ci am solo di yittewoo njaboot bokk yi ak nag di warmaalante di warmaalante loolu sëñ bi jàngale ni doomu aadama ñett lañ ñu di ko bàyyi xel ci mbokk ku la tiim koo tiim doomu aadama ñett nit ñi lañ sey mbokk yi duñ génn ñett ñi mbokk moo tiim yow féete ko fi ku tiim nit war a féete ci dimbale ko jàppale ko yërëm ko ak mbokk moo xam moo tiim doona nangul muy sa kilifa nga jox ko àq kilifa jox ko war ma mbokk mi tolloo yow def ko ne sa bopp sëriñ bi noonu yoonu adab wul tàmbalee tariqatul adabi rahmatu saxir kal abi wal ummi wa tawxirul kabir wa jaalu mislika ka nafsika sawa loolu it lu mat a jaar la ci ak mbokk xam ne nit ñi duñ génn ñett ñi ñett ñi rek lañ kenn ku nekk nag am na àq yu ci war boo ko dee def di ko rafetal dana tax seen diggante neex insha allahu taala ak nag moytu xëccoo bari waa na mbokk yàqu ak xëccoo moo ko yàq doomu aadama lépp luy xëccoo sa mbokk rek bàyyee ko ndax li wér mooy bu dee sa wërsëg fu mën a nekk dana ñëw fekk la fa bu dul sa wërsëg boo xëccoo ba jot ci doo ko jariñoo loolu lu mat bàyyi xel la nit ñi li ñuy xëccoo lépp jàpp ne maa ko war a moom ma war a nangam la léeg lay nit xëccoo dara ba ci bëgg a dee gaañante ci tàggoo ca ak bokkam nopp faatoo ci ko ndax du wërsëgam wala mu nag mu réer wala mu yàqu jëriñu ca boo tax yooyu amul solo looy xëccoog nii rek bàyyeeku bu dee sa wërsëg yàgg yàgg na del say loxo bu dul sa wërsëg jërul xëccoo ndax boo jotee it doo ko jëriñoo moytu it iñaanante moytu iñaan bokk na ci li bari lu yàq mbokk iñaan xéewal gu yàlla jox sa mbokk nga war caa sant yàlla war caa bëgg sa xol di ca nux nuxi ngay bëgg mu ñàpp am na xakim boo waxoon ne ki ñaan dafa sonn day nuroog sawara ak cuuraay cuuraay mi nga xam ne xet gu neex la sawara bu ko fekkee fenn iñaane ko xet gu neex yi ne na koy lakk te xamul ne lakk gi mu koy lakk ci la gi gën a tasaaroo nit ñi di gën a bëgg ku iñaane day mel noonu lay mel bu dajee ki iñaane di wax ci moom na muy waxee rek mooy xiir nit ñi ca xam ne kii kat ku baax la fekk yow da nga ko bëgg a yàq far mu doxi ca yokk ay daraja kon amul solo nañ moytu yooyu sëriñ bi noonu nañu ku iñaan du nekk mukk ab sang du yilif kenn ab jaam day nongul yàlla dogal bu yàlla dogalee ci sa mbokk aw yiw sant yàlla del ñaan yàlla xéewal ga yokk yiw a yokk ñu baax ñëpp foofu lañ nekkoon lépp lu dal seen mbokk ci aw yiw dañ koy woo di ko ndokkee di ko ñaan yàlla bu dee nattu ñu ànd ko moom muñ muñ loo ko defal ko waaye di yéene sa mbokk am nattu bu ko aw yu dalee nga ne yéene wu ko doo ci yem waaye da ngay dox ngir lu ko xañ li ngay njëkk la jëm fu mu ko jëlee fu mu war a jaar ba jëlee lii ana dogal yàlla yi dogal nga xam ne kenn ku ne la ngay am yàlla noppi na ci bala ngaa fàttang ci jot léeg sa mbokk am loo xam ne yow sa bopp bépp mu day ubbu ci fu mu ko jëlee loolu mooy jàpp nga ne waru ko am ab julit doxe noonu dëgg ma mbokk mbokk yi moytu ay bañante bañ moom lu bon rek lañ ko war a moo tax nit ku bon sax doo bañ jëmmu ja waaye lu bon la muy mooy moytu bañante te léeg-léeg nag am ñoo xam ne dañuy bañ nit bañ goo xam ne amul firnde boo ko laajoon diw mi loolu la loo ko bañ nga ne ma ko bañ ngir yàlla lay wax rek bañ ngir yàlla muy mënulaa laa jox firnde loolu it amul solo ndax ni mel yàllaa ko melal noona doomu aadama junne na mel yàlla ko melal noona kon day mel na soo ko bañee dogalub yàlla nga bañ te ab jullit nag du bañ ab dogal ndax bokk na ci ponk yi gëm yàlla gëm dogal yàlla yi moytu it di xeeb kenn wolof ne koo xeeb mu yab la doomu aadama lu muy xeebee nit amu fi wax ju imaam Ali waxtu sëriñ bi nettali ko ca Masaalikul Jinaan nit na xool démbam ak ëllëgam ak tayam ñett yi bu ko xoolee du xeeb kenn fan la jógee buy dund waxtu ne am na lu ne ci biiram loo xam ne bala koo génne làqu bu faatoo fañ koy jëm fan lay fan lañ koy yóbbu ñett yooyu nee na ku koy xool doo doo doo doo yëkkati sa bopp di xeeb kenn kon nit moytu xeeb ak loo am moo xam xam-xam bu am la moo xam ab juddu la moo xam alal la moo xam daraja yi àdduna la wërta tax nga xeeb kenn ndax loola lu yàlla séddale la kenn ku ne la cee sëb cër danga ci jot waaye saa boo xebee nit ngir nu mel la ci doy war mooy doomu aadama du ñàkk njëriñ léeg la gis nit ku xeeb mbokkam ci yëf dema dem ba am lu mu soxla soo xam ne mbokk moomu danga ko mën a lijjanti foo lay bëgg a jaar ngir bëgg a jubóog moom bu mbokk ma melee ni moom nag seen diggante doxe bu yàqu bu faw loolu li ma ta moytu la mbokk yi sëriñ bi noonu na ci ay ñaanam bu xulubuna ala tawaadudi bila tanazuin wala taxaasudi wala taxaasumin wala tadaaburi wala tabaagudin wala tanaafuri yooyu muy waral ak mbokk di yàqu tanazu taxaasud taxaasum tadaabur tabaagud tanaafur loolu bokk na ci li nga xam ne jullit bi war na ko moytu bul xuloo sa mbokk amul njëriñ xuloo amul benn njëriñ bu leen wanante ginnaaw ku ne jàpp ne mën ngaa dem sa morom bu ca nekk ku ne mën naa dund bi dooni sa morom waaye yàlla moo leen sant ngeen ànd moo tax du ngóora fi mu ne man koo bala mu bala man sama mbokk ngóora mooy say mbokk dañ lay ba nga jàpp leen yow yàlla moo la sant nga def ndigal lool waaye ku la ba nga ba nga ba du ngóora bi ci desit nag moytu am lu tax nga jàpp ne yaa gën kii dañ bàyyi xel li sëñ bi waxoon ne wa kullu man yanzuru fawqal kilaab fal kalbu xayrum minhu duna lutiyaab ak la ma waxoon ne falasta afdala axi min ahadi li jahli ma tasiru fii fi xadi mbokk na nga xam ne gënoo kenn ndax xamoo fooy mujj fii ak néewuñ démb la woon bis penc nga ne biir àjjana am koo xool seen ku mu nekk sa sawara kooku mu yàqu gën fii ak àggagoo foofa nag sa dara leeragul mbokk bi rafetal njort ci sa mbokk jullit di ànd ak ñoom jàmm di rafetal bul xeeb kenn kenn ku ne na mel jàppal ne yàllaa ko nattoo noona ñii yàlla mën na leen nattoo ak ñàkk mu tax nga xeeb leen ñàkk du gàcce ñii yàlla mën na nattoo ab ñaawaay ñii yàlla nattoo leen ay melokaan yeneen ñii yàlla nattoo leen daraja ñii yàlla nattoo leen wërsëg bu mu tax nga xeeb kenn wala nga xeeb kenn tax yëfi yàlla loolu ñu di ko bàyyi xel euh, donc mbokk nag am nay sabab moom bokk na ci réer yooyu mën naa moytu ak mbokk réeree ko dana tax doo ko mën a jokk waxoon nañ ko njëlbeen gi ñu ëpp ci nit ñi fii tey am nañ mbokk yu leen jege mënuñ koo jokk ndax lan ndax xamuñ ko xamuñ li ñu bokk nit faatu ñu ne ku koy doon ñu ne xamuñ kenn koy doon te ay mbokkam ne fi ndax mësta jokk mbokk ga xamuñ mbokk yi mbokk yee xamuñ ko loolu dana di am fi ne léeg-léeg ñun la diwkat daa faatu waaye bàyyiwu fi kenn koy doon dañuy wax rek dañoo sàggane mbokk ga ba xëmuñ ña ko war doon waaye néew na ndax càllal ak mbokk ci doon nit ñi niñ ko gàttale gàttewul noonu li ñuy tuddee ab naaw ma dafa mën a yaatu lool say maamaat seeni doom mën nañu dem war laa doon xëy na nag mbokk gu jege day tax yooyu duñ ci àgg mukk ba ñu bari jàpp yooyu duñ bokk waaye ci misaal mën a joxe mooy fi ne nit ku sant Mbàkke képp ku soqikoo ci maam maharam wala mu soqi koo ci Habib maam Moxtaar rakkam mën naa dem ba ngeen donante yi ci diggante bu ñu fa jegoon rek ngeen donante ndax da ngeen doon ay doomi baay te ci doomu baay doon da ci am yu mel noonu nag umpule ko dana tax nit ki jàppe sax koo xam ne ma war na ko mën a doon war ko doon mu jàpp ne bokkute moom dara loolu ñàkk xam la kon jéem a xam loolu lu am solo la ngir mën ko jàpp bi ci des it gëm yàlla gu doyee di dana tax nit ki sàggane ak mbokk waaye bu gëm yàlla dëgëree ndax am na ñoo xam ne dañuy daw seen i mbokk ndax jàpp nañ li ñu yor bu jaxaw seen mbokk rek day jeex bu ñu am dañuy nëbbutu ku ne sa mbokk bu lay wax ak moom sax doo ko déglu bu noppi woon ne la li ma doon wax léegi ne moom ngeen bokk mun la xaw ma li nga doon wax kooku bëggutu xam mbokk ndax jàpp na ne bu ko xamee li mu yor wàññiku kooku umpale yàlla la ak gëm yàlla bu doy di waaye bu sa gëm yàlla dëgëree da ngay xam ne lépp lu la yàlla sant aw yiw ci ne bu dee mbokk mu ñu lay jokkaloo jokk ko yiw la waaye bokk sàggane lor la bokk na ci lii dog ak mbokk ak rëy am na ñoo xam ne rëy leen jàpp xalaatuñu dog seen mbokk dañuy gis koo xam ne daal jàpp nañu wax nit ñi sama mbokk sax dañ koy rëy def loolu loolu day yàlla koy nattu ay nit te nit ki daa war a sant yàlla bu ko yàlla joxee mbokk yoo xam ne moo na sant yàlla ci ñoom di leen dimbali leen taxaw waaye di leen nëbbutu doo bëgg sax ku ne say bokk lañ loolu weddi dogal la loolu ak rëy la ndax nit nag mënta ñàkk fu mu jógee kon boo jógee ci barab tiim leen gën leen sant ci yàlla waaye waroo ko jàppe loo xam ne bëggatoo kenn koo tudd bu ñuy wax sax ba tudd ko nga ne man ñooñu bokkuma ak ñoom ah kay yàlla moo ko dogal dogal bu yàlla nag mëni su ko fànq bu la naqaree bu la neexee nan la yàlla dogal di nëbbu liñ bokk ak ñiñ bokkal ndax xëy na daye buñ toll ak fuñ toll bokk na ci lii dog ak mbokk it ak nay am na ñoo xam ne ay nay lañ dañoo nay seen alal tasaaroo ba tax fa suñu yéene jaxasoo kenn am na ñoo xam ne dañoo ñàkk yitte amuñ soxla ci kenn koo leen mën a nuyoole bu subaa bu ngeen dajee day leen nuyoolewaat bu subaa nga ne ko nuyoo naal dem mu la ah, kon ne seetlu ma ko na ci li yàq ak mbokk toggoo ci loo mënut am na nit ñoo xam da ngay ñëw seet si leen mu defal a taraanga joo xam ne boo lëgee dootu ko jaar ndax dootu ko mën a fay te bëggoo muy gàcce ci yow moo tax yu mel noonu kenn du ci toggoo luñ mënut nañ xam ne ay bokk lañ saa la sa bokk seet see bu ko dof mukk loo mënut ci àdduna bul toggoo mukk loo mënut ci àdduna jàppee ko ne sa mbokk lam la fekk nga di ci dund ànd la mu dund ci loola saa yoo amee xéewal nag taral ko ngir xéewal gi loola moom yërmaane yàlla dana la ci sant waaye nag loo amut bu ci sonn mooy tax mbokk dëgër bokk na ci li yàq ak mbokk di ko dog miraas mu jaarul yoon barante ay mbokk yu tàggali ko warante ginnaaw miraas mu jaarul yoon la ñenn ña noggutu ñenn ña ñoom gis na ñii dañoo tëdd ci seen alal mbokk seen alal li bàyyi ëpp leen doole moo tax wala ëpp leen i pexe lu ñu am boo liggéeyee duñ leen ko yéenee ndax jàpp nañ seen àq nga ci te joxuñ leen ko ñee jàpp nañ ñi tekkiwuñ dara kon waruñ ci am dara loolu lépp ay njuumte la mbokk yi kenn ku ne jox ko àqam xam ne wërsëgam bu dee moo ko wërsëgam ak kenn mënti dee mu jot ci kon loolu it ñu di ko moytu ci euh, euh, biir miraas miraas ni ko yàlla santaane bu ñu ko defee noonu rek boobu yoon waaye saabu bu ñenn ñi bëggee jariñoo alal ji wàcc ci des rek buntu mbokk yàqu daal di ubbi ko te jaru ko nag alal joo xam ni defaatu nga door caa jot jërti ñaaw te léeg-léeg nga ray rayante ca daj ca lu ne daf ca ay lënt ba jot ca daal ko woon ginnaaw wàcc ko ba ñeneen jëlaat ko ñoom itam daf na daf na nga defoon loolu amul solo yitte wu àdduna jópp it dana tax nit ki du jokk mbokkam am na ñoo xam ne seen business bañ nekk tax na amul mbokk amuñ menn mbokk mu ñuy seqal àdduna xanaa kuñ bokkal business waaye loo mën a bokk ak ñoom it la duñ ko yittewoo lool la ñoo xam ne njëwante la cër ba mën a am ci àdduna bàyyil xel ne ñi la yàlla boole ci mbokk moom danga ko war a sóoraale léeg-léeg nga jagleel leen dara ci sa waxtu ngir mbokk googu dund ak ngeen nga mën a am ndimbalul yàlla ci def ndigal la yàlla digal waaye saa boo jàppee nag ne ñii daal amuluñ ma njariñ ci business may def kon samay relation dama koy dagg su waa yaa ngi tooñ ak mbokk li ñuy tuddee kersa kersa gu baaxut kersa xam nañ ne gi ci baax mooy gi nga xam ne téewulaa daf farata tëxulaa daf lu lu lu araam nag am nit am kersak sa mbokk nga daje moom ci biir benn jataay waaye am nga loo rus nga rus a jóg wala rus a daf rus a wax loolu dañ ko jàpp ne ak doy di la bokk ak nag nit koo xam ne moom daa mënta dékku kenn am na ñoo xam ne li yàq mbokk ñoom soo leen romboon joggi leen sax bala ñoom bala ñoo am jàmm fayu mënuñu muñal kenn dara dara lañ mënta muñ lu mu néew néew boo leen ko defee darañ fay loolu nag ku koy dund say bokk da li ñàkk mbokk moo ngir nga dund moom da ngay jëllale di jéggale ndax doomu aadama yàlla leen bindee di juum yàlla leen bi dañuy tooñ dañu mën a tooñ léegi nag boo jàppee ne yow ku la tooñ nga fayu doo ànd ak kenn kon foofu mbokk ñu lay tooñ ngay muñ ñu lay lor nga di ko dékku ñu lay xas ngay jëlale loolu mooy tax nga ne ci seen kanam loolu mooy tax nga maanaam tuyaa bay mbokk gi moytu iñaan gi moo waxoon léegi ak ñàkk a warumaal kenn ak ñaaw njort nag ñaaw njort li ma te gën a moytu ci mbokk mbokk yi ñaaw njort ci la bokk lu yàqu rek ci diggante ay nit jaaw njort ko yàqu te li ma waxoon sànq mbir mu ne rek bu la neexee nga firee ko nu ñaaw mbir bu mën a doon su neexee nit mu firee ko firi ñaaw kon rafet yi moo gën waaye lu ñu def rek tasarufaat bu nit def nga ne nangam la ci jublu man lay léebu day lay gis koo xam ne saa bu ñu waxee ba noppi sax mu ne man lay waxal te yàlla mën na dogal kami wax bàyyi ko xel waaye lu nit wax nga ne man lay wax saa ñuy wax ci mbooloo nga am loo ca moomale sa bopp ne lii liñ ci wax maa tax ñuy wax loolu ñaaw njort la mbokk yi defal na sëñ bi waxoon ne saa boo déggul sax nit ki wax neel xanaa keneen lay wax bu bu tuddoon aw tur nga tudd noona neel keneen lay wax yaakaar du man rafetal njort rek doolu dara moytu rambaaj ak àndandoo yu bon bokk na ci yàq ak mbokk àndandoo yu bon nit koo xam ne yàlla da koy may bunt wërsëg wala yu mel noonu ay ànd nañu wër ko ñu mbokk yi tudd ay cogg wala yu mel noonu nga xam ne dañuy bëgg a dagg sa diggante ak say bokk gëm loolu ne la ñuy yàlla la génne ci ñoom yàlla la teg fi nga ne ñoom bëgguñ la yéenewuñ la li nga am ne ci sa bopp ba nga mujj bañ say bokk ñoom ñu jël leen nag bokkoo la di la jariñoo ñu bàyyi xel la sëriñ bi waxoon nit ki mën naa gën ay bokk waaye mënu leen a génn mën naa ëppale ay bokkam waaye mënu leen a ëpp na mën leen a ëpp noo mën a def rek ñu see bokk kon di bàyyi xel loolu ñeneen ñi nga xam ne bëgg laa jariñoo moo tax ñu bëgg dox si diggante bokk yi nga bàyyi leen xel loolu it moo tax bàyyi xel la waaye moytu it jëflante jëflante ci alal bari waa na mbokk gu yàqu moo ko yàq nit saa boo ko naxee mu dem ma xam ne da nga koo nax ci jaay wala jënd wala yu mel noonu mbokk yàqu yàqu yàq kon saa booy jëflante sa mbokk sóor ci loolu bu nax sa mbokk bu ko triyaa bu bu ko jaay loo xam ne ayib da caa nga di ko nëbbu bi ci desit bu la sa mbokk lebee te nga mën koo lebal ngir yàlla nga lebal ko ndax tege luñ mënut ak gàntu luñ man bokk na ci li yàq ak mbokk mu ngi wax loolu gàntu luñ man ak tege luñ mënut da yàqu mbokk yooyu it saa boo demee say di nga teg say mbokk lu ñu attanut bu yàggee ñu wan la ginnaaw waaye saabu bu luñ la mën a teg nga joxe ngànt te ñëpp xam nañ ne mën nga ko looy da yàq ak mbokk looy bokk na ci li mu war a moytu baax baax loolu lépp nag euh, mbokk yi mooy ak mbokk Sëriñ Tuubaa nag amoon na ci wàccuwaay wu leer wu am solo woo xam ne ñun mooy suñu royuwaay fi mbaax fi moom la yem jub am jagleeg suñu boroom bu fekkoon am na koo xam ne mën naa doylu wëris ay bokkam ngi ne moom waaye teewut daa amoon ay bokk la ko yàlla sant ca bokk lépp mu di ko def ci dem gën a rafete maa faral di wax lu ma ta bàyyi xel a Cheikh Ahmadou Bamba ku amoon i bokk la xamoon ko daan ko dund di ko dundal xadiimu rasulillahi nag ab muhim la ab woote la ku wuyus ci nga ku wuyusul bokkoo ñaari sax yi moo yoon a xàjjale la bu ñuy wax sëriñ bi amul mbokk xadiimu rasulullah la ñuy wax risaala bi ku yàlla jox amu ci mbokk ku wuyus yi mooy mbokk ku wuyusul bokkoo waaye ak Seexu Ahmadu Bamba moom borom bokk la te it daan xel ay bokkam daan na bàyyi xel ay bokkam wacaal jamia ixwati wa nasabi yow ma shdaadi nasabi ku sëntul mbàkki bokkoo ci ñaanu ko sëriñ Tuubaa wacaal jamia ixwati wa nasabi nasab moom la ñu xam ci geño la tey mel ne kon ay mbokkam la beral foofu ñaan te ñaanal na jullit ñëpp nag fu ne ñaanal na waaye nag beral ay mbokkam ñaanu boppam kon aw aw askanam la beral foofu ak ñaan loolu lu muy tekki ci jëflante it noonu lañ ko xamee woon mbooleem ñi bokkoon ak moom liñ mës a séq bañ na ko ba kenn ku ne ci ñoom loo doon ci moom bu lay bind bataaxel mbaa muy wax ak yow turoo wala ay wooye ñu doon ay wayjur ci moom ñu doon ay mag ci moom ñi doon ay rakk ci moom ñi doon ay doomi bàjjan ay doomi nijaay yëpp da ko doon dundal ba ci kal mii nga xam ne sax suñu aada la bokk di aada ju rafet da ko doon bàyyi xel diggam ak mbokki mbuuse ba yeeg ñooñu nga xam ne euh, dañuy leen wax ay doomi nijaay ak doomi bàjjan kon ngir fonk ak mbokk ak di ko dundal bàyyi leen xel ci boppam bàyyi leen xel boppam loolu it jàpp naa lu mat a lu mat la jamono ji nga xam ne barke bu tasaaroo nit ñi dañuy defe ne amatuñ soxla ci kenn jëratuñ xam kenn rawatina ñi nga xam ne nag léeg-léeg nga tàggook say bokk da leen di jariñ ñoom nga tàggoog say bokk da di jariñ ñoom ñooñ ñaar duñ sawar ci nga ànd ak say bokk moo tax yooyu nag ma ta moytu te xam ne doomu aadama bu àndutu ki mbokkam keneen ku mën a àndal mbokkum jàmbur te la ngay séq ak moom bu noppee ci ay mbokkum la koy jëme kon ñëpp war a fonk seeni bokk rawatina ku yàlla def nag nga am bokk yu baax xamewuñ leen lu dul diine ak njub góorgóorlu ci lu baax ak def lu baax loolu moom ndono la loo xam ne ñëpp ko war a sàmm kon loolu it bokk na ci li sëriñ bi woote woon tawféex ji ko ci yàlla defal ñu ëpp ci ñi fi daje ay bokk lañ ñi ëpp ci fi daje am na ñoo xam ne xëy na ba ñu ñëw ci sëñ bokkuwuñ woon waaye ak gorom leeg jaxasoo dem na ba def leen ay bokk ba mënut ñoo tàggoo kon mën nañu wax daanaka ñëpp ay bokk lañ mbokk googu nag ñun ñëpp ñoo war a ànd di ko dundal di ko suuxat ci dox ak ci wax ak ci yéene ju rafet. ak ci jëflante bu rafet kenn ku ne xam ne la nga am ba tax nga jàpp ne mën ngaa beru lu yàlla dogal ci yow la tey jotegut ak àqi mbokk dara nag ndax li ndigalu yàlla dalaa sant nga liggéey nga jaamu ci yàlla nga jaamu ci yàlla ginnaaw yàlla moo wax ne moytu leen arxam moytu leen yàlla tam moytu rahim moytu ak mbokk kon war na ñoo xam ne doonut lu woyof doon lu tuuti doonu it lu lu lu jàppandi ba nga xam ne nii nit ki nu mu bëggee doxee la ci doxee loolu lañ ko bàyyi xel baax ci jamono ji nga xam ne yu bari yi xew ñu di ko dégg lu ci bari lu yàq ak ay bokki neen di sànnante ay kàddu yoo xam ne adduna rek moo ko waral dara dara koo jaral ci adduna rawatina jamono ji nga xam ne lu ci ay waxit boo ko bàyyiwul xel bu njëkkoon nit daana wax lu ñaaw ñu dox ab diir ña ko fekkee woon bu njeexee mu jeex léegi nag lu ñaaw lu nit wax jàppal ne ba àddina tukki daanaka fii ak ressources yaa ngi wax ji du fi jóg man ngaa dem ba ci say sëtaat ñi di ko gërë ñi di ko nettali loolu nag lu ma tamoytu la rawatina jumtuwaay xar la yi nit ñi dugg di ci wax wax seen i bokk lu dul noona ak def ci def ñaaw téef la woo xam ne ñaaw téef yëpp bon waaye rawatina ñaaw téefu fi des da nga dem ba yow sax nga bëgg caa génn mu tëla ndax foofa du loo fa mën a dugal saa yoo ko mën ko génn jàpp naa ne bokk war nañ ko bàyyi a baax fii jamono toll loolu mooy li ma bëggoon a tënk maa ngi jégalu nag di baalu àq dellu di eh, ñaanal eh, mbokk yi daayira bi nga xam ne am jataay yu am solo yi ñu amal di ci tànn tomb yi nga xam ne jàpp naa ne boo ko mbokk yi bàyyee xel dana ci mën a jariñ jariñ yar di ndokkeel yépp di leen baalu àq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf sëriñ bi waxtaan wi am na solo lool e, te kenn ku nekk tamit jël nga ci sawal bu baax a baax a baax ndax li ko waral mooy kenn da cee mucc ci tomb yi nga xam ne indi nga ko tënkal ñu ko te benn bu ci nekk bu ci gën a am solo rek nga ne bii la e, lan mooy ak bokk ci boppam leeral nga ñu tamit solo si mu am ak àq yi nga xam ne mooy yi ci aju benn bu ci nekk nga indi ci ak yaatal ci anam bu woyof bu jege nit ki ba nga xam ne dana ci mën a jariñu moom ci boppam bi li nga ci njëkkee muy lan mooy ak bokk nga boole leen ñoom ñëpp ci cosaan ci ni nga ko leerale ci tàmbali bi kullukum min aadam ba aadam min turab euh, bokk yëpp aadama moo leen meññ te aadama ñi ngi ko bind ci suuf ni ma ko waxee woon ci tàmbali bi léegi Eh, annaasu min jihati tamsili ak faw faaw abuhumu aadama wal ummu xawaa nga leeral ñu tamit lan mooy ak bokk ci boppam mooy ñoo xam ne dañoo bokk askano muy bokk fu ñu juddoo ci lum jege-jege ak lum sori sori nga ne ak bokk mën naa jege waaye boo ko toppee it mën naa sori loolu leeral nga ci ne amul liñ naan diw dafa feggu ba xamuñ ku koy doon loolu yaakaar naa war nañ koo xoolaat ndax kenn ku nekk am nga ay bokk waaye ni mu amee solo ci sunu borom ci bi mu ko bindee mu jooy mu mu ne ko looy jooy mu ne ko dama ragal ñu dog ma sunu borom garanteel na ko kon na la neex ci ku la jokk ma jokk ko ku la dog ma dog loolu kon di ponk bu am solo boo xam ne war naa tax nit ku nekk fonk bokkam euh, nga indi tamit ci tombum ñaareel bi àq yi nga xam ne aju na ci ginnaaw boo leeralee lan mooy ak bokk ak am gim am solo yan àq moo ci aju loolu li ci njëkk nga ne mooy xam xam ak bokk loolu nag lu tumuranke la nit ki daanaka su xamee yaayam ak baayam ak maamam rek daanaka du mën a jàll te kon jaadu na ci waay jur comme ni ko mag ñi daa defee su soo juree doom nga xamal ko fi mu bokk xamal ko it mooy kan dana ko amal solo ba su gisee bokkam du ko xeeb ndax ak bokk mooy loo xam ne nit ku nekk kenn rek nga ci sa ci say bokk kenn su nit ñi dajaloo rek ngay doog am njariñ waaye soo beroonee yow cundum yaa fay nekk soo boo boolee say bokk booloog say bokk ci ngay doog a am njariñ ni nga ko leerale ci ne nit ki